émission bi dafa ànd ak étique ak déontologie démb la mi Samba daf ma woon ma am na benn waaye bu ñu naan Serigne benn waa euh, Serigne bu ñu naan Serigne Baara Dolli bu ne Kouthia maa ko présenté ki nga xam ne mooy mooy euh, euh, ministre bi directeur domaine Mame Boye Diao mais man je pense que ne musuma tasante sax ak Mame Boye Diao bu ñu tasante ma ko xàmmee.

c'est passagère amul solo parce que man je pense que ne actuellement nii